844 wala nga woo ko ci 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippileen seeni bët te tàggoo ki nax ki ko mën laa ki koy jéem te ki ne fànn daa nga ne maa ngi nii nëbbatul ay mbiram. bëgg Sénégal ñu jàngal xale yi éducation Euh, Mame Balla éducation sexuelle noo gisee loolu Sénégal ak ni réew mi toll ak ni réew mi mel ci ay kilifa diine xale ndaw yoo xamante ni dañ leen yóbbu daa seen xel doog macc tuuti ñu andi leen ci école yi ñu dañ leen di jàng éducation sexuelle. dëkk bi de boo xoolee fi mu toll lépp a waaye ci kaw benn côté loolu damay jàpp ni ci parents yi la rek. ndax man su ma mee suma doom ñaan naa yàlla suñu borom ma jéem a def ci xelam leen loo xamante ne du bokk ak ñu toll nii xalaat ni sexe nga war a nga war a jàng waroo koo jàng waaw dëkk bi toll na foofu waaye tollul foofu ci xale fi mu toll ñu war a xam ni carrément xale daa war a taxawaayu xale. mag xam ni mag la tamit fi mu toll buy communiquer léegi dëgg fa toj da ngay gis carrément mag boo xamante ni kilifa la buy toog day wax ay wax yoo xamante da jàpp naa kii kii rab moo ko lan la day wax ay wax yu doy waar xamante ni ci wàllum lu munti doon. te amul benn loo xamante ne da koy wax pare muy am lu ko gêné non non da koy wax tey bu subaa mu waxaat lu gën a pire loolu ci wàllum sexe ci wàllum lu mu tuddoon xale yu ndaw yi di ko dégg jàpp ni loolu moo nekk dëgg loolu mooy première chose bi voilà moo tax après fi mu nii gars yi ñu ngi classe comme théâtre kat li ñuy théâtre théâtre kat di wane ni carrément fi mu li may théâtre ma ko war a théâtre pour yow affaire yooyu pour nit ñi xam ne li ñuy li ñuy yi xam ne li ñuy dund jarul théâtre ci loolu classe ma kenn waaye l'essentiel dafa am ñoo xamante ne ay kilifa yoo xamante ne ñoo njëkk a nekk kilifa nga xam ne ñi ay kilifa lañ dañoo war di jàpp dañoo war di julli dañoo war a jaamu kon foofu mooy premièrement mooy parents yi fi mu toll nii war a seen xelee xalaat yi ñu jàppale seen doom yi wala beneen dund dund boo xamante ne carrément non ci dimension boo xam ne day yàq booy xale jeune génération bu ndaw beeg yooyu di ñëw ci kanam tuuti te dëkk bi day gën a doy waar day gën a doy waar nañ jàngale xale yi jàngi moo gën ñu jàngi araab jàng li ñu war a jàng seen dimension diine ñu jàng ko moo gën ñu leen di jàngal ay sexe ak nangam amul sens quoi moo tax du ma. ànduloo ci daal du ma ci débat débat bu bëri quoi loolu amul sens ma ci ànd loolu du ma ci ànd xalaatu moo sax yow muy ko jàngal loolu kon amul sens muy xam loolu ci xale bu ndaw ko bu demee benn âge bi am 18 ans 19 ans day toj réew voilà kan moo yore réew mi ëllëg après loolu mooy problème. kenn xamu ko